njëkk ci jaw loo <laughs> def baax na ayca euh, damay ñëw ci Kange ah euh, Kange tey ñu gis Kange wax dëgg yàlla kenn dootul présenté kànge fii ci Sénégal mu muy liggéey liggéey bu am solo mhm. euh, tey ñu gis la nga jóge à l'extérieur ñëw Sénégal mhm. bëgg fee imposer dara mhm. amoon ay jamono sax da nga delluwaatoon <laughs> mosuma dellu ba ñëw tey dellooguma lan moo lan moo tax mu mu mu mu delluwaat waaw loolu back to the boobu noonu la moo taxaat nga delluwaat ci say racines lu tax. comme like comme lu tax ma dellu si Sénégal. Mm-hmm. parce que dama jàpp ni tey jii doomu sénégalais lu mu mënti am bitim réew mu am ko Sénégal ko gën te man like loolu dafa yàgg a nekk sama bopp te loolu la ñuy yaree sama yaay ñun tout le temps même bi man euh, bi may dem 16 ans laa am. Mm-hmm. nekk xale bu ndaw. Mm-hmm. mais sama yaay daf ñu wan ni carrément que ni yéen ay doomu sénégalais ngeen. lu ngeen mënti am tamit seen réew na leen ko gënal na leen ko dàkkal mhm. te mu neex dañuy del si Sénégal mu yéex tamit maara dem si dañuy del si Sénégal mhm. kon defe naa ne lu waaye di mënti def tamit ci liggéeyam mhm. bu ci mënee jàppale tamit réewam que bañ ci jàppale réewu jàmm taxaw ne tey jii lépp loo am tey ji laay nga am ko sa réew moo dàkk tax tey jii ma bàyyi lépp ñibbi si Sénégal te réccu ma ko aussi. waaw ñu gis Kange euh, xam nga tey euh, yow si sa cas. Mhm. dafa xaw a dafa xaw a li ma li may wax xam nga sénégalais ndeysaan <laughs> dafa bëgg lu yomb du dëgg. tey man xam nga bu ma demee bay létt ku mel ni Beyoncé nañ waxante dëgg. dëgg la ah, di ah. létt ku mel ni ay ay ay ay naka lañ koy waxatee. dëgg la ah, ay ñoom Solange. ñoom ñoom Solange ak yu ni mel. Mhm. Euh, du ma ñëw fii naa maa ngi liit ay bisu. ah waaw mais pourquoi maa ngi liit ay cicaa du ma ko def. damay waaw fii. <laughs> ma yokk sama dëgg waaw mais loolu du si dara. kaa nga ñiy létt fii dañu bëgg dem létt ñee. waaw dëgg la mais. yow nga jógee ci ñee ñëw ci ñii. parce que ñoom dañu demul si ñooñu moo tax. ñii nga xam dañuy yàqalaate. <laughs> waaw gaa mais dara <laughs> sant yàlla rek. du ma yàlla rek. sant yàlla non non li am fii rek moo am li am fii rek moo am fële. you mhm. pour man gisuma différence bi ni ngay ñafee fii di dégg lu metti di ko muñ noonu nga nekkee fële tamit di ñafe di dégg lu metti di ko muñ mhm. you know te man jàpp man jàppuma que ni Beyoncé ak Bijou wallahi yow ak Beyoncé laa yemale. boo toogoon tey boo ñëwoon sama salon <laughs> deux heures sérieux Beyoncé ñëw sama salon deux heures et demi yow laa njëkk a defaral wallaahi soog koo defaral parce que man lool sama principe la gëwma ah, ah ok amul problème <laughs> non euh, bu kon du ma ñibbisi non non sérieux non non kon bu du woon du ma ñibbisi kon mënoon naa toog foofu noonu yeggale fa sama liggéey mhm. mais dama bàyyi lépp ñibbisi. Mhm. parce que man man ci sama jëm bopp man maa bëgg Sénégal man. man naturellement man mhm. dama bëgg Sénégal man li ma nekk États-Unis yëpp chaque un an damay ñëw vacances. chaque un an chaque décembre maa ngi Sénégal ba mars ma dellu donc like loolu du du du lu bees ci man. Mhm. du caagi ne dama jàpp ni like liggéey bi Sénégal la gën a doxee ndax Sénégal fii boo fi liggéey bu ñu lay fay salaire sax par weer lañ lay fay. alors que États-Unis par semaine la ñuy fay. bu dee xaalis bi foofu la gën a bare fuuf macha allah parce que ñooñu nga lim nii booy liggéey ak ñoom tey jii ci contrat ngay liggéey ak ñoom. bu contrat bi jeexee bu la ah, neexee renouveler si bu la neexee bàyyi donc. kon boo leen di létt amoo droit létt keneen. si man bi may létt Beyoncé ci ki laa doon léttaale ñaari sœurs yi. ak ñoom Serène kii. Serena um, Williams Solange. sœur sœur Williams parce que salon bi ma nekkoon la. donc salon bi ma nekkoon salon célébrité la alors que man salon bi ma nekkoon pour dire vrai man salon bi moomu ma ko dama fa doon liggéey ñu may fay par semaine mais mhm. ñooñu bi ñu ñëwee dañu signé ak man contrat bu ñuy déplacé wu di ma jël déplacement ak yépp mais ba tey rek ci liggéeyu jaamur laa nekkoon mais sama yëfu bopp bi ma ko bëggee def defuma ko seen réew dama ko indi sama réew dama ñëw sama mhm. réew pour liggéey fi sama yëfi bopp mhm. mais bi ma ci oh, like ci ay loxo nit laa nekkoon. d'accord mooy ki nga xamante nii moom moo defar um, diplôme mu master class bi ci moom laa nekkoon. Hmm. donc moom mooy première um, black bi am licence su rasta ak licence su ay torsaat affaire yooyu yëpp. moom fi mu ne nii ku fay def benn métier bu mu moom da nga koy fay. soog koo def <laughs> ku ko piraté ci lenn da nga ko koy fay. Eh soog koo def Sénégal bu ñu donc moom instant bi liggéeyatul sax. yow la war a fay xanaa bébé xeer war nañ la ko fay de. <laughs> loolu day bari day bari ak yeewu bi. dugal la ci casque bi yeewu nañ ñu bari ñu seen nopp dem sax. Oh, <laughs> mais loolu lépp ci sant yàlla la bokk. wallaahi sant yàlla la bokk. mi ngi nii loolu lépp ci sant yàlla la bokk xam nga ni bopp yi ak loxo bopp yi benn kii dañu signé woon tamit contrat man ak moom kii kii la nu mu tudd am fàtte naa Mhm. benn suliyaam affaire yooyu mais bon ñoom ñëpp rek booy liggéey ak ñoom contrat ngay liggéey ak ñoom mhm. mais bu contrat bi jeexee tamit dangay kii mais mais dafa am fu point bu am solo boo nekkoon mhm. muy droit d'auteur bi waaw droit d'auteur bi moom man gëw ma ni loolu mën na am Sénégal parce que loolu comme suñu like artist yi ñoo ko fi kaas ba sonn te teewul sottiwul sàkkam maak man kange style mu ndaw mi du <laughs> dëgg dañu sant yàlla di ñaan suñu borom chaque jour mu ñuy may ñuy like innover du génne lu bees nit ñi di si topp dëgg la amoon nañu bari ñoo xam ne sax seen seen nàmpatali ba noonu na jamono ji nga génnee fii tête bi seere ko fii biisu bi nga defoon fii ci ci ci ci oh. suñu teres ya dañu doon capturer sax dañu demoon te di ñu yóbbu di lay walaay <laughs> euh, euh, mais fierté lay doon sant yàlla dëgg la loolu lépp si sant yàlla bokk rek di mm-hmm. ñaan rek suñu borom saa yi ñu yeewoo yàlla nañu may kattan gi ak man mën gi ak mm-hmm. laaj inspiration bi ñu koy gën di def. ñu ñëw ci ñu ñëw tuuti ci inspiration bi. Mhm. parce que tey Kange. Mhm. Euh, euh, euh, tey bu ñu waxee bu xale yàlla rek à chaque fois. Mhm. inspiration bi da ngay gis muy innover à chaque fois. di génne beneen affaire boo xamante ne du bokk ak bii. ba ñëpp macha allah. sama catak catal moroom ku nekk di yàkkamti. di pour di dem wala ngay rêver Kange di la defaral sa bopp. tey innovation bi naka la lay dikkee à chaque fois ngay ngay ñëw di créer création bi. innovation bi nag li ko indi lépp xam nga lan la dama jàng. dangay ngay rot ci ñoom ñëw def ko ci ñun. wala damay damay xool si lépp. damay xool nga gis bopp sénégalaise boo xam ne da lay moo dàq bopp américaine. dëgg la c'est vrai. Sophie parce que comme ñi ñi nañuy duggee ci kànge di xool li kànge def di dem di ko defaat. Mhm. man tamit damay nekk ci sama téléphone di. am di recherche ay coiffure di xool mais loolu lépp jàng moo ko waral. Mhm. tëbuma tëb ne tey kànge. dafa bëgg coiffure naa def métier xaalis dugaluma ci coiffure dama rampe bi ma amee 13 ans ba tey maa ngi ci coiffure. fii nga ko allah fii ci Sénégal. laa jànge def 2 ans corps coiffure génn fa jaar ci salon yu bari. rampe ci salon yu bari fii ci Dakar dugg fii génn fii dugg sama premier salaire chaque jour dama koy wax 20 000 francs la. donc xam nga ni loolu yombul. Mm-hmm. mais samay waajur ak sama yaay ñoo ñoo ma ci jàppale parce que. xam nañ ni dama ko bëgg dama doon former ci me ci mbedd mi di létt samay moroom di tiim seen bopp yi di leen létt di jàngantu létt ba fii ma yegg si donc innovation boobu ngay wax tëbuma tëb rek mën ko loolu moo tax ma bëgg ko nit ki mhm. lépp looy liggéey boo ko bëggee foo ci toll rek macha allah da nga ciy sant suñu borom dëgg la mais mhm. tamit day tax nga mën di toog di inspiré wu mhm. donc loolu lépp si liggéey bi la bokk waaw dama bëgg li may def loolu moo tax balaa may ñëw ci beneen partie bi sax parce que am na <laughs> am na benn point boo xamante ne yaa ngi koy wax léegi damay dem si maam Diarra. Mhm. mu tënk juste ci ci li nga xamante ne. Mhm. moom la Kange euh, euh, introduire. waaw loolu li ma ci bëgg bëgg a expliquer rek mooy bëgg-bëgg la. Mhm. xam nga nit ak lu mu bëgg naqari naa tàqarle moom. Euh, parce que amul fii yenn yi daf fi nekk comme ni nga ko wax léegi ah ngay létti ñoom Beyoncé. ak yu mel noonu. Mhm, mhm. Euh, man mën naa am. Mhm. yow mën nga ko jël lu rëy. mais yenn saa yi. da ngay nekk ci benn dëkk boo xamante ne. t'as une facilité de voir Beyoncé. pour ñaali létt. man mii sama loxo yi li muy sew sew am na ay célébrités yu mu mës a létt Italie. ay joueur. ay woykat yoo xam ne mun naa leen tudd. létt naa leen. xam nga mais xëy na facilité boobu. dëgg moo tax ngay dem ba mu yàgg nga mën leen nga nga mu dëkk sa dëkk gënal la ko parce que l'amour de la patrie bu xasee ba nekk ci yow loo mën a am ci àdduna yow sa dëkk la koy gënal dëgg la mm-hmm. xam nga man mi maa ngi ni nekk député mm-hmm.